daaratu al fadli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñi ngi delsiwaat beneen yoon ci sunu darsu muy muniyatul muridi li tijaani ibnu baaba sunu darsu zani wa isriin darsu ñaar fukkeel ak ñaar ñi ngi ci karaama yi nga xam ne yàlla jagleel na ko cheikh na tijaani radiallahu anhu mu limoon ci karaama yi ne bokk na ci karaama yi mooy teg gi mu teg tànkam ci sunna sunna yonent bi sallallahu alayhi mane la boobu karaama gu màgg la ci karaama yi mooy itibaahu li sunna wa hiya lada rijaali gayri minna bokkoon na ci karaama yi comme niñ ko waxee ci dartu bi passé mooy gis yonent bi sallallahu alayhi wa nga xamante ni mooy gaayatul muraad min rijaali sufiina ci góor yi yàlla yi nga xam ne ay mutasawifiina lañ man a gis yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam yàlla dana may ñu bari ci ñi nga xam ne ay góor yàlla lañ yaa ngi dégg ci njëkk Cheikh Tidiane radiallahu anhu dégg nga ba léegi sax am nañu ko yàlla jagleel ñi gis yonent bi sallallahu alayhi wa parce que loolu du dagg ba ilaa abadil abad benn waay boo xam ne ndeysaan yàlla dafa ko nattoon làmmiñ bi leerut ndax léeg-léeg nit ki dana am xam-xam waaye du am làmmiñ bu leer bu fasaaxa boo xam ne dana mën a wax ak nit ñi lu nu dégg muy siraaju diin ibnu mulaqin mu ne mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk julli siraaju diin moomu yonent bi na ko yow sama doom doo wax ak nit ñi hmm? yaa bu nay ya alaa tatakallam moom itamut wax yonent bi sallallahu na ko yaa abataahu ana rajulun ajamiyun man góor laa goo xamante ni maanaam fasaaxuma naka laay waxee ak fusaay baxdaadi waa baxdaadi yonent bi na ko ŋaal mooy ubbil sa gémmiñ mu ubbi gémmiñ gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoon di nga wax bi na ko nag wax ak nit ñi jàngal ko laaya ji mooy udoo ila sabili rabbika bil xikmati wal mawizati al xasana wooteel jëm si yoonu sa borom ànd ak xikma ak waaraate woo xam ne wu rafet la dégg nga Siraaju Diin mooy de mu ne tusbaar toog hande ba mu toogee ni ñi bari lool mu ne mu gis Ali ibn Abi Talib mu taxaw si peegam si jataay bi de yaa ngi dégg ba pare mu ne si naa liw waxaat ko li ko yóneen li yónent bi waxoon Sirajuddin moom na ko lu tax doo wax waxal léegi Sirajuddin na ko ah nit ñi de ñi ngi toog ni wër ma waaye nag mënaguma wax ak ñoom Seydina Aliou nag xubbil sa gémmiñ gi mubi ubbi gi Seydina Aliou tëfli si juróom-benn yoon yonent bi juróom-ñaari yoon waaye Seydina Aliou juróom-benn yoon léegi siraaju diin na ko yow lu tax mataloo ko juróom-ñaari yoon hmm? waaye li taxoon matalul ko juróom-ñaari yoon mu ne loolu ta adduban la ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bëggut a tolloo ak yonent bi ndeysaan ndax nit moom bu la jiitee rek jiite na la waroo ko dem ba leeroog moom yaa ngi dégg wala nga koy sës dégg nga wax bi mu ne ba mu ko waxee loo rek Seydina Aliou nëbbu ko ab diir mënatu ko maanaam gisatu ko ca foofa nag si la commencé di wax ak mbooloo mi dégg nga ci këllimaat yoo xamante ni yu fasaha la kon mu ngi noonu ah, gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla jagleel na ko kooku nga xamante ni mooy siraaju diin eh, kenn la ci góor yàlla yi naka noonu am na ku ñuy wax abdul xafaar bu nuuyin al muqaddas moom itam daan gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu baree baree baree bare ba sax yonent bi na ko li nga may gis bu tax nga yokkat ndax benn guddi rek da siy gis yonent bi saba asara fukk yoon ak juróom-ñaar ci benn guddi yonent bi na ko nag gis gi may gis lu bari nii nag bum bum la taxa a de yaa ngi dégg ndax boo yokkatee rek da nga yàqule yaa ngi dégg wax bi de kon ba tey gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko yàlla jagleel bari na eh, naka noonu eh, Aliyu ibnu Wafa dégg nga moom da daan waxtaan ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax booba mom xale la muy gis yonent bi booba juróomi at dong am di wax ak moom caqsatan laa mën a man fekk booba nag mu ngi sol mbub moo xam ne mbub mu weex la ndeysaan mu jàng sóoratu duwaa hmm? yonent bi na ko jàngal sóoratu duwaa mu jàng sóoratu duwaa bam jàngee sóoratu duwaa bam paree mu jàng alam nasara ba mu alam nasara nag yaa ngi dégg bi fàddu ko mu toog diir bu yàgg gisut ko moom Zeydi Ali bun Wafa bam demee ba jot ñaar fukki at nag moom Ali bun Wafa si la xarmal bëgg julli mu gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kanamam mu dàqu xante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jàngal laay ji ne wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis moom ali bun wafa kon ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa koy gis dégg nga yaqsatan la man bari na eh, boo demee ci zeyd abdul azarani dégg nga ci téeréem boobu nga xam ne mooy la taiful minan nee na mbir a ngi ci góor yàlla yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi dañ koy gis ci ludul nelaw mu lem mu lim nag <clears throat> mbooloo ci ñooñu mu ne bokk na ci Zayd Aliin xawas bokk na ci alxaafisu Suyuti imaamu Suyuti ak ku dul ñoom ñaar dégg nga te mooy Saraani boppam la ci namu ci zeydi ibrahima almutaballi rahimahullahu taala mu ne juróoma ngi nii ñoo xam ne ñoom kenn rek mooy seen sëriñ amuñ sëriñ ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa ñooñu nag kii mooy nettali de si abdul wahab azzaraani ñooñu aljaidi kii fi la bokk mooy boppam la ci namm nag monsieur ak kan ak abo madian ak kan ak seyku abdurahim alxanaawi ak kan ak cheikh abu mas'ud ibnu abil azair ak cheikh abu azan azazili radiallahu anhum ajmain ñoom ñii yaa ngi dégg ah, kenn du wut seen sëriñ lu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga wax bi kon gis yonent bi sallallahu alayhi wa ñi koy def bari na waaye karaama la ci ñi nga xamante ni ñu ngi koy gis kon limal na la lenn ci karama yi nga xam ne yàlla jagleel na ko Maulana Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu wax na la ñaari bis yi muy bisu altina ak bisu aljuma ñaari képp koo xam ne gis na ci Seydina Cheikh yow da nga dugg aljana te da nga ci mbugalam yàlla mooy duñ la mbugal ba tey muy lim nganeel yi karaama yi nga xam ne yàlla jagleel na ko Cheikh na Tijaani radiyallaahu anhu tay bi dégg nga mooy wa minhu anna rabbahu qad saffa'u fi kulli man qad kaana fi asri ma wa ziida isruuna min azinina li cheikhina musaxaha yaqina kon dañ doon leeral dégg nga ci ñi nga xam ne ñoo doon gis yonent bi waaye darsu bi fii la commencé tey fi ñu commencé nii wa minhu an rabbahu qad safaa fi kulli man qad kaana fi asri maa wa siida azruuna min assinina li seyxina musaxaha yaqina wa minhu anna xaatima risala xaala lahu ma lil bilaali qoola wa xiila li cheikhi rafiu fikri ma libni daawuda ata fi sikri min qawlihi haa saatauna ila axiriha wa mislu saalan yuhsala aqa qadri wa miqdaari lasim nee na wa minhu bokk na ci karaama yi aleykum salaam mu ne bokk na ci karaama yi yi nga xam ne yàlla jagleel na ko cheikh na tijaani radiallahu anhu anna rabbahu naka borom bi xat zafaahu ramuloo na ko moom Cheikh Tidiane parce que safaatul umma dégg nga loolu yonent bi salaa salaam moo ko jàngale dégg nga euh, awliyaaw yi danañu ràmm zulahaaw yi danañu ràmm suhadaaw yi danañu ràmm ak ñi nga xam ne fu faas la ñu mokkal alquran danañu ràmm ëllëg yowmal xiyaam fi kulli man qad kaana fi kulli man képp ña nga xam ne xad kaana nekk nañ fi la asri si jamo maawaand ak moom maanaam képp koo xam ne rek dund ngaa Seex Tijaan radiyallaahu anhu bu ëllëgee yaa ngi dégg danga bokk ci ramom maanaam ko dund ak moom yaa ngi dégg ci jamono dégg nga wax bi kon jamono bi nga xam ne sila judd ba baamee génn jamono képp ku mu dundal rek yaa ngi dégg danga bokk ci ramu bi yaa ngi dégg mu ne wasiida dolleef na ko isruuna ñaar fukk mina sininin ci at loolu mooy xarnu li sayqinaa ñeel suñu sëriñ mu saaxa mu nekk lu ñu wéral yaqinan mu nekk lu leer Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dafa wax ne zafaani llahu fi ahli asri hmm? mu ne yàlla ramuloona ma sama ñun jamono loolu la Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wax ba waxe waxee loolu te xalifaam mooy Seydi Ali Arasim na ko wa ziyaada isriina zanna ak ñaar fukki at ya ca topp te booba Cheikh Tidiane radiyallahu anhu boobu mu ngi dund waaye booba dafa am lu bëgg a jàngale xam nga xarnu mooy téeméeri at te Cheikh Tidiane mu ngi dund juróom-ñetti fukki at kon téeméeri at yi boo jëlee ñaar fukki at yi teg ko si mu doo door a mat xarnu muy ñaar fukki at kon boo si tegee ñaar fukki at muy doog a ma téeméer muy xarnu bi nga xamante ni yaa ngi dégg de moom la Cheikh Tidiane nekk aaye mu nekk aayam e mooy xarnum dégg nga mooy téeméer ñu ngi jëlee foofu yonent bi sallallahu alayhi dañ ko indil benn jirim mu ñaanal ko yàlla na ko es xarnan yàlla na nga dund xarnu jiriñ boobu dund téeméer at moo tax xarnu mooy téeméer at te juróom ñet fukki at Cheikh Tidiane boo si yokkee yeneen ñaar fukki at muy téeméeri kon dégg nga képp koo xamante ni dund na dégg nga eh, gannaaw bu mu génnee jamono ñaar fukki at da nga bokk ci ramu boobu nga wax bi moo tax ba mu waxee ne képp koo xamant mu yàlla ramuloo na ma sama ñooñ jamono Seydi Ali Arasib na ko wa ziyaadata asriina sana ndeysaan te Seydi Ali nga kooku amoon na kasu ndax moom moo njëkk a génn jamono Cheikh Tidiane radiyallahu anhu waaye yàlla xamal na ko ne yaa ngi dégg Cheikh Tidiane du am téeméeri at dégg nga waaye nag yeneen ñaar fukki at yi ci des itam ci la bokk képp ko dund itam da nga bokk ci ñi nga xam ne ci savant bi loolu mooy mbir mi kon nag mu ngi noonu nee na na ci waaw mooy karaama yi anna xaatima risala naka ki mottali risala bi te mooy yonent bi sallallahu moom xaala wax na lahu ñeel ko maa lil bilaali maa xaala lam waxoon lil bilal ñeel bilaal xam nga yonent bi dafa waxoon bilaal na ko anfiqi yaa bilaala wala taxsa min arsi iqlaala waaw dundale yow bilaal bu ragal nag ci borom xaras ñàkk ndax yooyu tamit dépasse am bi dafa am ñu ngi ko daan dénk bilaal na kenn la ci ñum daan jox dépasse muy mu koy mu koy joxe yéen bi na ko dal dundale yow bilaal bu ragal dara mooy bu ragal ñàkk Cheikh Tidiane itam yónent bi sallallahu alayhi wax na ko loolu ndeysaan na ngay dépassé te bu ragal ñàkk joxeel waqiila li seyqi waqiila waxeef na li seyqi ñeel sëriñ bi rafiu zikri sëriñ bi nga xam ne dafay yëkkatiku ci tur mooy ku yëkkatiku lu tur la maalib ni daawuda lañ waxoon ibnu daawuda dégg nga yaa ngi dégg ataa boobu dikk na fi sikri ci alquran te mooy lan mooy aaza ataauna famnun aw amzik bi xeyri hisabin lii sunu may la jëlal nga joxe walla nga téye may goo xam ne duñ la ci hisaab dara yàlla moo ko jox rek di nga wax bi kon Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wax nañ ko loolu yonent ti wax na ko loolu sallallahu alayhi wa nga wax bi mhm. ci nag ndigalu yàlla kon aaza taaw na fam nun aw am zig bi xëyri xisaaba mu ngi noonu moo tax min xawlihi si waxi yàlla jam naan xaasa taaw na xaasa liya taaw na mooy siñ may ila axiri ba mu jëg aaya mu haza taw na fam noon am sik bi xëyri zaab mu ngi noonu kon mu ngi noonu Seex yàlla may na ko wërsëg moo tax ku bëri woon alal la ku bëri woon lu muy dundale la ñi mu yoroon di leen jox dépasse ci këram ak ñu dul këram ak ñi nga xam ne dañoo feebar yaa ngi dégg ak ñi nga xam ne dañoo amul dépasse ñëw si moom di ko ñaan mu leen di jox dépasse kenn xamu nu mu toll dégg de ngir bari moo tax mu ne ilaa axira bu mu jëg aaya bi wa misla saa kem lii nag lii nga xamante ne moom la yàlla may Cheikh Tidiane te mayoon ko Daawuda dégg nga euh, mooy Souleymane bun Daawuda mu ne loolu lan yux salaa deefu ko tere deefu ko jombaloo deesu ko tere mooy kenn wax ne kenn mënul dàq loolu ne loolu mënul am dégg nga parce que maye te yàlla muy maye lam maye ba léegi jeexagut dégg nga wax bi kon mu ngi noonu yontu yàlla Suleymaan xam nga yàlla daf ko mayoon nguur waaye itam may ko wërsëg waaye itam terewoon mu nekk yonent yàlla daf ko tànnaloon ñett rek mu tànn xam-xam nguur lañ ko loon ak yonent ak xam-xam mu tànn xam-xam yonent gi ñëw nguur gi ñëw dégg nga wax bi hmm? kon nag mbir maa ngi noonu yàlla jagleel ko yaa ngi dégg de lim mayoon euh, Souleymane moomu <clears throat> yàlla may ko ki nga xam ne mooy dégg nga Cheikh Tidiane te mooy wërsëg gu yaatu woo xam ne bilaayi saabin ndax bul fàtte ne moom euh, yonti yàlla Souleymane mu raw habli mulkan laa yambaqi li ahadi min baxdi yàlla yàlla may dégg nga nguur goo xam ne dégg nga du yàllati keneen di amati loolu sama gannaaw ci yàlla nag may na ko wërsëg wu may na ko ngur waaye itam mu nekk ab yonent loolu la ko yàlla jagleel parce que ngëneelu yàlla moom kenn mënu koo tënk ci benn mbir ci benn jamono ci benn waxtu déedéet mu ne wa kullu ma yanaaluhu kulla aarifi min alxilaali wa min almaarifi fa cheykhuna amaddahu min annabi wa xisbihi bi naylihi li rutbati dégg nga mu ne fa qadaat riqaabu awliya li qadamay cheikh bi lamtiraa'i mu ne wa kullu lépp la nga xam ne yu naalu des na ko am kulla aarifin bépp arif aarif bu mu doon lépp lu mën a jot ci yàlla minel xilaali ci ay jukk hmm? yu sell jukko yu ñu sant melokaano yu mat yu rafet hmm? wa minal maarifi ak ay maarifa lépp loo xam ne nit dana ko jot ci yàlla ci ay maarifa ci walliwu mu ne fa sayxunaa suñu sëriñ bi amadoo mooy ki ko tëbb laay ndeysaan mi ne nabi jëlee si yonent bi sallallahu alayhi ndax bul fàtte ne euh, Cheikh Tidiane radiyallahu anhu waxoon na ne ruuxuhu wa ruuxi tamidul anbiya wal mursalin wa tamidul awliya wala arifina wala tamidul aqtaab wala arifina yaa gi dégg euh, ci beneen riwaaya nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy tëbb anbiyaaw yi mooy tëbb mursaliin yi man nag maay tëbb awliyaa maay tëbb itam ñi nga xam ne ñooy aarifiina yi loolu la ko yàlla jagleel moom Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wa hizbihi ak kuréelam bi nay lii ci xamam lirut ba ñeel daraja yoo xam ne yàlla moo ko ko jox mu ne faqa riqaabal awliya doqi waliyu yàlla yépp li xadamay seyxi ñeel ñaari ndëggu cheikh tijaani radiallahu anhu bilem tiraa ci lu dul benn weerante bilem tiraa ci lu dul benn sik sàkk dégg wax bi kon nag euh, cheikh tijaani bul fàtte ne waxoon na ne laa waliyun wala yushqa ila min naa min nasati alaalami ila nafqi fi suwar mu ne wëliyu du naan du nàndale du naan ci yàlla wala muy nàndale mukk lu may ci suma géej gi ci la naane nga ne ko kañ mu ne la ko dalee ci commencement alam bi ba bàyyi ñee wale buftu ku naan rek ci yàlla ci man la naane ku naan ci yàlla Cheikh Tidiane radiyallahu anhu nee na ci moom la naane dégg nga wax mu waxaat feneen ne xadamaaya aataani ala raqbati kulli waliin dégg nga saabati ila nafqi fi suur waaw sama njaari ndëggu yi mu ngi ci doq bépp waliw mu ne li ko jamono saaba yi ba ñi walee bufta bi moom la ko yàlla jox hmm? moo yore maqaama boobu moo yore ngëneel googu moo tax sëriñ bi nee na fa xadaar toroxlu na riqaabul awliya doq waliyu yàlla yi li xadamay cheikh ñeel ñaari ndëggu cheikh tijaani radiallahu laanu bilem tira ci lu benn def def le bilem tira ci lu benn werante yaa ngi dégg moo tax ñëpp ñu ngi ci ron tànku Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu moom la yàlla jagleeloon ba mu waxee nag euh, taalibeem Seyd Muhammadul Xaali waxoon na ko nooy def ak waxu Cheikh Abdou Khadir wax ne xadami ala raqbati kulli waliyin moom dafa sama ndëggu lii mu ngi ci dox bépp waliyu yàlla dégg nga wax bi bi na ko euh, Cheikh Tidiane wax wax euh, Seyd Muhammadul Xaali na ko kooku wali jamonom la waxoon te benn ndëggum la wax man nag sama ñaari ndëggu yi muy ndëggu sariya ndëggu xaqiqa yaa ngi dégg maa ngi ko joggi dégg nga li ko dalee si jamono saaba yi dégg nga ilaa nafxi fi suuru dégg nga loolu la nga yàlla jagleel ki nga xam ne mooy Maolana Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu wax na ko nag ci lu dul màndi ci pii yàlla bi ndax léeg-léeg gaa yi dañuy màndi ci pii yàlla bi di wax loo xam ne aal moo leen koy wax loo tax ba mu waxee loolu taalibe bi laaj ko ndax danga nekk ci mandi walla déedéet mu ne ko maa ngi sant yàlla man de maa ngi ci ak wuri mooy mandiwuma li may wax nii doo dama mandi ci leeri xaqiqa moo tax moo koy wax déedéet waaye daal sama ñaari ndëggu yi maa ngi lay xamal ne jog gi naa ko ci bépp doq waliyu li ko dalee ci saaba yi dégg nga ilaa nafqi fi suuf nee na yasaadul minbara min almuuri xada yasmoo bihil kullu sanaa wa sudada su yunaadi inda munaadi ya ahla zal xasri wa za wa za naadi haada imaamukum wa za mumiddukum fi daari duniyaakum bi xeyri ilmikum mu yasaadu dana mu yéeg moom Cheikh Tidiane radiallahu anhu si place bu kawe minbaran mooy minbar ñu tegal ko benn mina nuuri ci leer waaw xam ne c'est su leer la mu toog ci moom Cheikh Tidiane xar dan ëllëg yowmal xiyaam bu ko defee nag yas mu dana yëkkateku bii ci moom dana kawe kulla sanaan gépp ak yëkkateku wasuuda dan ak càng summa yunaadi topp woote hendaza fo foofale munaadin benn aji woote benn aji woote woote na yaa ahla sal xasri e eh yéen waale mii yéen mbooloo mii toog wa haada naadi yéen waa penc mi maa ngi leen di xamal ne haza imaamukum wasaamu middukum fi daari duniyaakum bi xeyri ilmikum maa ngi leen di xamal ne kii mooy ki nga xam ne mooy seen imaam mooy njiit li mooy Maulana Cheikh Ahmad Tidiane waaye kii mooy ki leen di ci yàlla képp ku am ndollal ci yàlla ci Maulana Cheikh Ahmad Tidiane foofu la jaaree foofu nga amee ndollal ndax nit ki sax mën naa am courant buy tàkk këram te pourtant xamul kan mooy dégg nga directeur bi Senelec bi ki yore wàllu courant bi xamul ko moo tax da nga gis ñoo xam ne sax duñ ay tijaan yi waaye ñoom nangu nañ ne seen may ci Maulana Cheikh Ahmad Tidiane fu la ko yàlla jaarale te ñoom duñ tijaan yi ñu koy seede te ay góor yàlla lañ dégg am na ñoo xam ne nag dañuy bañ waaye loolu moom ku bañ ak nangu moo ci loolu la yàlla def wasaa kii mu midd ko mooy ki doon tëbb fi daari duniyaakum ceen aduna bi xayri ilmikum te xamu leen koon xamu leen sax kii de Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane moo leen doon tëbb ci yàlla laay ndeysaan loolu yaa ngi dégg ñu bëree bëri bëri bëri dañ koy réere waaye réere ko nag yàqul ci dara dégg nga waaye boo ko xamee nangu ko nag dange ngay noppalu rek <laughs> hmm, te da ngay gën a yokk sa may day gën a bari say tëbb day gën a bari waaye boo bañee nag te xam ne loolu mooy li am bu baa loolu ak kañaan day dugg te nag al asuudu laa yasuudu xañaan moom képp ku koy def doo mos a nekk sang wala yaasu bilaa te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne inna al xasada yakulu azanaat kama takulu naar al xatab mu ne kañaan day lekk jëf ju rafet jëf ju baax comme ni safara di lekke mat xam naa bon dañuy taxaw foofu beneen yoon di wax alhamdu awalu daxwaana wa axiruhu walhamdulillahi min hiini ila hiinin asalaamaaleykum wa wa barakaatu. abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly. Dahiratoul Fadly war ngay sant yàlla ñun lay digil kese loo